les assises de Rabia mhm. dafa daagu ndànk ci dëkku naar yi mhm. indi leen benn graine mhm. euh, ñu koy woowee fenugrec fenugrec waaw fenugrec kon tey da ngaa daal ba biir Maroc biir Maroc dem Inde dem ci dëkku naar yi noonu noonu dellu si waat ndànk ñëw <laughs> ah proposé ko suñu suñu euh, téléspectateurs yi macha allah partagé ko tam ak suñu mbokku jigéen yi parce que comme thème bi la topp te fenugrec bëri na jeexital torop ci ci ci jigéen mhm. muy jigéen di góor di xalé sax mhm. baxna torop parce que bëri na euh, ay ferñeent bëri na vitamine amna vitamine A mhm. amna vitamine B amna C1 amna protéine amna lipide glucide amna potassium bëri na bëri na euh, euh, vitamine ak sel minéraux bëri na tamit amna tamit ay antioxydants donc da fay jappalé jigen góor euh, ci période nga xamné da ngay ces cellules yi fay dégénérer wu ak yoyu donc mhm. dina jappalé euh nit ñi dal ci lolu mhm. donc baxna ci bien-être. Mhm. baxna ci wergu yaram. Hmm, baxna pour accompagner tous les jours. mak ndaw xalé et cetera voilà. donc suma ñëwé ci wañ bi. euh euh yi ak yenn dëkku euh, Afrique yi koy utiliser comme euh, épice mhm. donc mu accompagner seen togg yi mhm. suñu demee ci Égypte ancienne également mom mhm. euh, lañ dan jël def ko cuuraay grec bi lañ dan jël def ko cuuraay dégg nga di conserver momie momie moy sen mooy yi xam nga prison lañ dan denc néew yi ay ay ay temps ak yoyu donc dañ ko dan def cuuraay mu don conserver ah euh xet xeetu kii bi donc pour wan la ni que fenugrec mhm. bëri na pàcc yi nga xam ne woon am na ci euh, fu muy euh, amee njëriñ mhm. léegi su ñu demee ci les médicinales uh-huh. voilà suñu demee ci les vertus médicinales. Uh-huh. baax na ci rhumatisme yëpp infusion nga koy def. Uh-huh. donc ma delluwaat si les formes yi ñu am ci fenugrec. am nañ ko doñ bi. graine bi graine bi am nañu xob am nañu pëndëx bi. am nañu également gélule. donc boo mënul utiliser bi rek mun nga utiliser bële mu jàppale accompagner la. donc baxna ci rhumatisme. baax na ci problème digestion baxna ci ñi nga xam dañu am cholestérol mauvais cholestérol bi daf leen ci jappalé mhm. baxna également ci nga xam dañu am diabète. Mhm. Euh, parce que daf leen di permettre surtout ñi piqûre dafa leen permettre ñuy produire insuline bu bari mhm. donc da leen di jappalé ñi nga xam dañu am problème euh, respiratoire dañu am problème noyyi ñi nga xam dañu am asthme bronchite. Euh, fenugrec bi. daf leen ci jappalé d'accord jigen également bu doog accoucher ak protéine bi daf leen di jàppale pour ñu produire lait. donc dañuy am meew de qualité voilà mhm. dañuy am soow bu bu mhm. baax. Mhm. donc daf leen di jàppale. Euh, pour seen meret tamit bañ a yéeg. également fenugrec dafay intervenir ci ci ci loolu. yooyu tamit da ngay def infusion rek. waaw da ngay def infusion rek. daf leen di jàppale mais su bu dee jigéen bi la euh, comme ñu ngi ci thème bi bëgg yokk jongoma et cetera et cetera <laughs> donc ñaare dañuy utiliser fenugrec mhm. mais il est préférable nga jël huile de fenugrec bi mhm. euh, boole ko ak pi mhm. ah ak boole ko huile de nigel xabati sowda donc nga diw ko fi nga xam ne moom nga bëgg mu développé voilà moom nga yi diw surtout guddi nga xam ne sa yaram c'est au repos. Mm-hmm. cellules ni ñu régénérer et tout. Mm-hmm. donc moment boobu nga di ko si soo yeewoo mm-hmm. bon boko défé quelques semaines yow di nga gis amélioration. kon jarul ñuy jéggaane dem di def ay chirurgie non pourquoi kon bii bi elle day xaar. produit naturel produit eh, naturel yaa ngi fi amul amul effet amul effet secondaire merci dimbali nga leen nag ah, tam bi la ñuy topp rek am na lu ko mën a remplacer am na lu ko mën a remplacer ñëwaat yi naturellement ah, bio ah. doo ci am problème mhm. donc boobu mooy benn formule bi mooy bi mhm. ngay utiliser huile bi mhm. beneen formule bi da nga koy def roux moom ngay jël def ko baxal ko segg ko wala nga jël poudre bi xooj ko ci ndox xent ko ñu liggéey ko booy togg sa ruy wala togg sa fondé wala mu xam sa qui ci def ou le mm-hmm. ah, wala ou wala beurre sucré ko lem mm-hmm. donc di nan lolu da fay tax ñi comme ni nga wax Mauritanie bu mm-hmm. dañuy mbellax sen donc bu boba yow di euh, masse corporelle bi mais quand même vous mu am proportion parce que

mon tamit mon nañu def même chose. Mhm. utiliser fenugrec bi. Mhm. après dem def sen sport. Mhm. donc di nga gis sen muscle yi dina génn. sen tablette chocolat yi tamit ni xalé xale yi bëggee dina eh guen ak yoy donc <laughs> voilà lan moy tablette chocolat. te te te na waaw mais ni xam nga xam nga ñun. <laughs> ni ñu beugé am yaram suñu forme yi génn et cetera. goor ni tamit buñu def musculation. da fay am ay parties yoo xam ne seen di guen merci dañuy tablette chocolat. voilà dañuy am sen parties yo xam dañuy bëgg mu <laughs> développer ak yooyu. li aku na nag ya lah yàlla ay tablette chocolat yi nga ko fi indi xale yi duñu xam yooyu problem juga. di problème ci réew rek te bismillah continuer voilà ñi nga xam ne tam am hémorroïde mhm. externe interne externe bi mhm. da ngay def euh, euh, kii bi euh, fenugrec bi moom ngay baxal mhm. après nga nga xent ko toog si mais sa yaram daf koy nangu ah, lu sa yaram nangu su ko les principes actifs de la jappalé ci par rapport à l'hémorroïde euh, mm-hmm. les hémorroïdes internes boy def infusion du nan mm-hmm. donc dina la jappalé pour euh, pour lolu mm-hmm. impuissance frigidité. ak euh, fertilité pour jigéen. également fenugrec daf len ci jappalé bu baax a baax. ñi nga certains cancers. comme cancer du col. cancer du colon

noo ko bëgg a def li ngay wax nii rek mm-hmm. naar yi dañ koy firndeel ndax ñoom moom la ñuy utiliser loolu loolu laa lay wax ni am na ñoo xam ne sax ulba lañ koy wax xulba waaw xulba xulba boo demee Maroc lool lañ koy wax moom lañ koy wax moom la ñuy utiliser macha allah ba pare dina da jox tam euh, teint teint teint bu rafet mm-hmm. donc le soir nga def ko sa sa sa sa kii euh, gommage ak yooyu tëdd mm-hmm. boo yeewoo sangu di nga gis sa yaram dina kii wala tam nga diwoo ko huile bi carrément nga koy diw sa sa yaram et cetera mhm. donc ki koy éviter rek mhm. comme d'habitude mhm. saa yi ma waxee dinaa wax bien que moom amul effet indésirable parce que c'est naturel mais ñi ko war a moytu toujours rek mooy ñi nga xam ne dañu dañu jël ëmb ëmb bu bu bu ndaw ba yenn mois presque ci dernier mois parce que dafay jàppale pour accouchement facile travail facile ak yooyu d'accord donc ñooñu fin bi lañ koy utiliser. Mm. également ñi nga xam ne am yaram déjà. Mm. obésité. Mm-hmm. ñi nga xam ne am nañu ñoo ñooñu moom nañu éviter di jël. Euh, mm. fenu rek voilà. Mm-hmm. ñi nga xamne tam dañu nek ci traitement anticoagulant. Mm-hmm. nga xamne sen seen du way. donc ñoo ñu dañuy dañuy éviter jël jël fenugrec. donc lolu la leen indi indiloon ci baax baaxu fenugrec. top tam bi rek.